candidature bu mu mënti doon ci élection présidentielle soso ci parti politique wala ci coalition jóge ci parti politique dafay ut ay parrainage article 57 bu code électoral loi bi wéyal ni ci élection électeur bi dafa war a parrainer benn candidat wala liste yoo xamante ne ay candidat ñoo ko seet ci même article bi ci alinéa mu nekk lu metti ci ay élection waral soppi gi nga xamante soppi nañ ko ci loi boobule juillet 2023 assemblée nationale voté ko muy adoption boo xamante ni am na ay soppite yu bëre ci ni ñuy defee ay parrainage ci élection yi tey ji candidat yi am nañu ñetti choix ci assemblée nationale ci mairie wala ci askan wi pour jëm ci élection 2024 nag utum parrainage bi tijji na wante parti politique yu bëri dañ ko ŋàññi. des fois c'est des doublons des fois c'est des doublons externes. moonte de cour de justice bu CEDEAO jox na dëgg ñi ànd ak Abdoulaye Tine ni parrainage arrangé wul ki nga xamante ni moo di sénégalais bi. ñu ñëw jël benn photographier rapport de force yi au niveau de l'Assemblée nationale bëgg na ñooñu ñooy déterminer. participation bi en tout cas benn parti ci compétition présidentielle boobu ba léegi nag mu def ñaari at. kuuru CEDEAO lu mu wax Sénégal defu ci dara suñu sukkandikoo ci ministère bi organiser élection yi nee na mënuñu dem ci élection ak lu tollu ci cent candidats.